ahlan bikum ginnaaw bu ñu ko falee président bu Sénégal moom Bassirou Diomaye Faye réew mi muy njëkk tukki mooy réew Mauritanie Nouakchott la jëm le mandat yéene kaay moo ñu ko xamal ba pare yokk ca ab laaj ne ndax tukki boobu mu njëkk def jëmale ko Mauritanie ndax fay gën a dëgëral rataxal xaritoo gi dox suñ diggante wala boo xab bunt la ngir lu mu xam ca tukki ba source a yéene kaay na ko premier ministre bi tamit Ousmane Sonko ña ngi koy xaar ca building administrative lan moo undu a yéen a kaay ne man yokk pouvoiru premier ministre boobu est-ce que nekku risque ci Bassirou Diomaye Faye le regard yéen a kaay ne passation de service ministre yëpp def nañ ko gouvernement bu bees bi waaye am na ministère yoo xam ne sénégalais yi duñ leen may sax fuñ nokkee fa ñu xaal ñu lijjanti léegi seen i jafe-jafe ah, yaaw seetal njàng mu kawe mi liggéeykatu maire yeeg conseil départemental yi wàllu commerce càmm gi ñooñu ñu ngi xaar ñu lijjanti seen i jafe-jafe jafe-jafey koppar bi ñuy ruumandaat fa am ci réewum Sénégal Bassirou Diomaye Faye moom fa dalal xel yi waaye jëwrinam ji ñu dénk koppar réew mi moom dalalu dalal xel yi de maanaam bu kii njàqare ka ca des xam xel mu dal mu mel ni wax ya fa wuutee ca ñoom ñaar tribune yéen kay moo ko wax de te Cheikh Diba ne nañ moom de préparé woon na budget sept mille trois milliards yoo xam ne makkee ko fi bàyyi l'observateur ne dundu gu gi nu ñuy fexe ba jëlee ko fi ñoom gouvernement bu bees bi ak mbiru xaalis yi ñuy njort naan fa manqué ci keesu nguur gi yëfi fa laaj ab sacrifice ministre bi ñuy wax Daouda Ngom yor environnement mel ni ku naan leen voilà sacrifice boobu moo war a tax affaire mbiru 94 milliards yi muy Mamour koy fàttaliku te Sonko waxoon ko fi ak xaalisu corona ko war a lijjanti metti sa sax xaarama dem te ñëw moom ministre bi ma ngi ko waxee ci le quotidien yéen a kaay bés bi yéen kaay moom fa ñoo xamal ne bànqaas yi nga xam ne fay saytu xalalu réew mi ñu ko dénk ak nañ ko doxalee muy OFNAC ak Cour des comptes ak parquet financier yi ni mel Bassirou Diomaye Faye président bi moom fa jàpp ne ña ko war a jiite fañ leen a war a tànn ginnaaw bu ñu defee appel d'offre yéen a kaay bi ne waaye leen Serigne Bassirou moom kaala pour Ousmane Sonko ak yeneen kaay yu nekk ca biir info yéen ñu fàttali taxawaay bu am solo bu juróom-ñaari attekat ya conseil constitutionnel xamaloon bi fi njiitire maanaam fa dem ba jël seen responsabilité jot ñu fere ne njiitëram Macky Sall na ko lii du fi am lii am te loo jaadu yéen kaay bi mel ni ku naan gàcce ngaalaama conseil constitutionnel seen taxawaay fa xam solo <laughs> leer leneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne opposition bu Sénégal fi mu toll ni fa mel ni fa ñoo nekk ci ay jafe-jafe de fa ngay foog na sax opposant amul ci réew mi ah ndax benn bokk yaakaar ñoom fi mu toll ni fa ñoo xam jafe-jafe leadership kan moo leen di jiite waaye yeewi askan wi moom dajalewaat leen ci ñu nekk ay opposant fay jafe ndax ñu jël nguur gi ca ñoom lañ bàyyeekoo ba tax si du quotidien na coalition jomaay président daal fa koo xàllal yoon rek ñoom rek ñoo fi nekk nekk di doxal bés bi yéen a na soxna Ayda Mbóoj moo tax moom fa tëjal bunt ñi xam na leen ñun bëgg na bokk ci gouvernement bi ndeysaan te boole wuñu leen faa xamuñu nu ñuy def direct news yéen a kaay man faa leen di wax gouvernement Ousmane Sonko bi lan moo tax waa PDS yi bokkuñ ci wàcc gis nga trahison war ga PDS waroon yeewi askan wi ca assemblée bañ gañee ñu mujj dem bennoo foogule na gaay loolu lañ fayu wala boo Karim Wade ñam tànnoon ngir ñu def leen ministre nekku ay nit ñu bees ñu ñu xam lañ te gaay ay xar-xar yu bees lañ soxla woon <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne mboolem ministre Macky Sall ci gouvernement bu bees bii seen passeport diplomatique yi nguur ak jomaay gi fañ koo nangu tëraleen ñu tukkee ci ba tax fi mu toll nii ñoom ministre Macky Sall yooyu fa ñuy dem di ñaani visa maanaam passeport ordinaire le mandat yéen a kaay wane photo Aji Mbergane ca Kaolack ndàggaam info yéen a kaay na ko aji mbergaan fa mer ñaawlu passeport diplomatique yooyu gaa yi nangu ba nekk ministre lañ leen ko joxoon léegi nekkatuñ ministre nguur gu bees gi nangu ko loolu rek la réew mi yéen a kaay ne Mamadou Diop Decroix moom ma ngay càmbar procès jomaay fay bii ni mu a yore réew mi libération moom fa di càmbar wàllu tappale ci fisc bi bu ñu njortal ca projet ba wax GTA Eiffage génie civil marine Sénégal yaay fa a cocaïne mooy bu ñu mëq rek mu mel ni sunguf meew ca Kidira lañ ko defee yéene kaay bi ne li ni mel nag guléet la duwaan jàpp lu toll nii ci drogue ndax li jàpp nii boo ko xaymee ci xaalis toll na ci juróom-ñeen fukki milliards 90 milliards l'évidence kaay moom fa ñoo xamal ne Mamour Diallo kër gam jiite di OFNAC bëggatuñ koo gis fa ñuy sàkku mu jógee ci kër ga nam gën a gaawee ndax yorin wu bon tappale ay mbir yu doy waar yu ñu wax na la nekkee OFNAC yoor yoor yéene kaay moom it fa xëy di ñu ñu doon wax naan fan yi koo setal ci xaalisu Prodac bi yéene kaay bi ne loolu amul koo setal du cour des comptes ak ku munti doon ci mbiru Prodac bi ndax moom responsabilité am fa cee taq rip te li ci kanam raw li bët fay leer li leer tribune yéen a kaay ba wax ñu ko mooy kuréel ga ñuy wax force vive de Kaolack di ay kuréel yu bëri yuy défendre intérêt Kaolack ña ngay sàkku si président Diomaye Faye mu dugal loxoom leeral coow li dox ñoom ak ka nga xam ne fa ñoo wax ne fay xaaki moom moomeelu askanu Kaolack yëf yi fa war a leer le soleil yéen a kaay moom fa ñoo xamal ne planning familial bi nga xam ne soxna yi fañ koy def ngir soreel am doom yi façon bu bees bi ñu ci àndi soxna yi doonte bëgg nañ planning waaye li ñuy wax ay effet secondaire dong lañ ci jaaxal maanaam fa ngay planning ba pare mujj gi daal di gis sa yaram wi loo xam ne bokkut ci leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne concours njàngum alquran prix international bu bàyyi Niass final ba amal nañ ko ca Medina Baye Niass ka jël ba nag réewum Bangladesh fa la dëkk nit ku weex la fukki million la gagné ka ca topp égyptienne la cinq millions la am troisième ba Mahi Touré trois millions am na beneen naar bu bàyyeekoo Jordanie moom it na ci ak yeneen i sénégalais ba tax Cheikh Abdoul Malick Cheikh Ibrahima Niass xalifa ba ak allajnatul olia ak organisateur yeeg mboolem ñu jàpp ci bés ba ba mu yemb l'évidence yéen kaay moo ñu ko xamal si du quotidien moom fa ñoo xamal génnuk àdduna journaliste bu mag bu ñuy wax mbay si di mbay journaliste la woon formateur la woon ba tax taskatu xibaar yi ñu ngi ci naqar ak tiis ñeneen ñu nekk ci naqar ak tiis mooy askanu saalum ndax seen doom ju mag moom it moo génn àdduna muy El Hadji Malick Gueye lat menge l'évidence yéen kaay ne seede yi nag benn la El Hadji Malick Gueye ku baax ku amoon njëriñ yóbbu na tali dëkkam lat menge yóbbu na fa ndox tabax jàkka juma yóbbu nit ñi màkka lim xam ci ay turandoor xëpp na ñaar téeméer wër sa gëm fa ko bokk ak askanu saalum te tamit liggéeyal na Sénégal ndax nekkoon na fi député xalifa général bu Medina bàyyi seede ci moom seede yu kawe ak kilifa yu bëri yi nga xam ne ñëwoon nañ bañ koy jébbal moom ci xarmel yu mi Medina Baye ya ci turu directeur rajo Alfayda ak mboolem liggéeykatu rajo Alfayda ci sama kàddu ñu ngi koy jaalee te di ko ñaanal yàlla xare ko aljana ndax ko bëggoon te fonk rajo